neen ñu am lu ñuy laaj ñoo di syndicat gi boot ouvrier yi ak docker yi ñu ne na leen nguur gi gën a weeg ba noppi boo leen ci convention gi nga xam ne moo tënk bépp liggéeykat euh, Sénégal tey lañ ko xamale seen ñaareelu congrès ordinaire gi ñu doon amal la Ibrahima Sarr moo di seen secrétaire général moom la àddu ci micro Badara Diop ak Pape Samb ñëpp xam nañu ne docker yàgg na bëre euh, docker yàgg na yokk koom-koom Sénégal parce que réew buy dem kanam moo koy jëmloo ci kanam mooy port ak aéroport poor bi nag li fa Docteur liggéey kenn mënu ko wax avant l'indépendance après l'indépendance ñu liggéey ci jafe-jafe yu bare bari bari mais ci diggante bi sénégalais yi ñëw diriger Sonpos di waxtaan ak ñoom am na lu bari lu soppeeku mais des na lu bare bari bari ba tax na bu ñu ñëwee am yaakaar ñëw CDSL ñun lu ñu mën mooy incha allah jàppale leen. pour que seen protocole d' bu ñuy waxtaanee ñu mun koo wéyal ci biir protocole d' accord bi nag Docker mun a am à bu baax Docker mun a faju ak njabootam Docker mun a am dëkkuwaay bu baax Docker bu fekkente ne dañ ko war a fay war a ko fay salaire bu baax a baax ñu war ko aar aussi fu muy liggéeyee accident du travail war bañ a dal ci kawam. parce que loolu yëpp bu fekkee ne docker amu ko du mun a liggéey du mun a am productivité boo moderniser fexeel ba ñi nga xam ne mu ñooy acteur ñooy liggéey eh, jumtukaay yi nga indi ñu nekk yu bees ñun ñu nekk ci condition yoo xam ne mun nañu liggéey ba seen xel mun a dal